moom ngay njëkk a jël rek boo féree ijji moo xoolee ñu mel ni ñoon iliman jéey xam ni seen àlluwa soriwul ñoom xam nañ ko wal ni am mayete rek ñun laay ci boobu moom yàgg nañ koo dégg sax laay wax nga xam naa ni duñ sax sax mokkal lu bari waaye dina la man ne waa téere am ma téere am ma kay moom gis nga mu ngoog mbokk yi téere boobu nag maanaam kon li ñuy dégg mooy fi ne tafsir bi li ci des ngir ñu yegg ca saar yi gën a suufe bareetul ndax diggante boobu ñaari xisib rek moo fi dox da ngay wax xisibu ammayta muy amma ba wassamaay wa taariq nga jël sabbi xisma ba naasi ñeenti nisif ñaari xisib borom bi subhanahu wa taala biñ fi jógee dafa jeexale woon rek ni ginnaaw ba mu ne alam na jaalil arda mihadan wal jibala awtaada def ca teg wax ni wa xalaqnaakum azwaajan yàlla nee na wa xalaqnaakum azwaajan maa leen bind <clears throat> def leen ay peer maanaam ngeen di ay góor ak i jigéen ay xeet laa leen def si laa leen waxee woon loolu ni lim ci jublu nag mooy àdduna si alkawkabul ardi ngir ñu mën fi continuer nit ñi dañ fii de nee na nag bokk na ci liy yombal seen nekk ni ma leen amale di góor ak ay jigéen ni góor bu bëggee soxna na dem ci jigéen ñi jigéen bu bëggee borom kër na ñëw ci góor ñi loolu laa bëgg su ngeen ko fi bàyyee nag a ah, lu leen dal yéen a ko teg seen bopp borom bi subhanahu wa pare foofu ni wa jaal naa <laughs> allahu akbar seen nelaw yi ngeen di nelaw man maa leen ko defal ngin ngeen ci ngeen ngin ngeen man cee noppaloo man yàlla maa ko def nee na bu jotee mooy no nelaw yooyu mooy noppal seen yaram yi te kenn mënu ci dara nee na pour seen yaram yi noppalu dëgg faaw rek ma indi leen loolu maanaam dagg arrêté activités yi ngeen doon def li may dugal ci diggante bi ngir mu arrêté mooy damay indi nelaw mooy ñëw dagg arrêté activité bu doon loolu di gis ñoo xam ni du ñu nelaw guddeeg bëccëg waaye boo ko defee rek yëg ko imagine rek man bu ma xëy see ñëw 2S yenn saa yi nga xool nit rek xam ni kii moo fanaanee liggéey bi boo xoolee kanam gi day sadd day day coono bët yi commencé di néew yi ndax lan xëy na guddi gi yëpp dafa dafa fonctionné <laughs> guddi gi yëpp dafa fonctionné am na ñoo xam ni nelawuñu nelaw moo taxit furu toog nelaw fa foofu gis koo xam ni dang dang judul jeex rek lay def ah oui sooy mën di aw may nelaw awmay nelaw toogal. sooy toog commencé di dajjeen ndax li nga yor ci ay bori nelaw te nanguwoo tëdd moo la sonal te nelaw yàlla nee na naw makum nag waxul waxul pour ñuy bay ñépp ko soxla waaw waaw ko soxla da koy soxla waaw waaw jaaykat ba dina ko soxla gardien ba dina ko soxla ndeysaan moo tax da leen di yërëm ak guddi googu ñu ni leen yéen kat liñ leen sant liggéey bi ngeen def mooy yow vigile nga boo xam ne guddi gi yëpp waroo nelaw danga nga war di garder di surveiller ah coono ngoog demal ci station yi xool koo xamante ne dañ ko daan yaay liggéey tey ba tel heure day liggéey ba mu guddee guddi demal ci ñi nekk ci kaaru guddi koo xam ne liggéeyam moom vingt trois heures lay commencé ba six heures du matin accident de travail yu bari dañuy seetlu ni ñiy liggéey ci kaaru guddi la ëpp lu muy dal li ko waral mooy dangay ngay gëmmentu yàlla dafa yor ay nelawam di ko joxe allahu akbar ma xalaatee rek bis damaa jóge Thiès di dem Mbuur di dawal te dama fanaan ci gàmmu ba gàmmu ga jeex nelawuma ci gàmmu gi yépp chauffeur bi ma war a yóbbu gisuma ko rek ma yàkkamti dawal di dem dem fàtte ni man damaa fanaanee xool départ naa Thiès bay tollu wetu Sindia ci station bi bi may jub foofu laa commencé santir ni maa ngi nelaw jar ca station ba wax leen sama soxla ñu ma am na kafe goo xamante ni moom boo ko jëlee moom jeex na ndekki ci yoo nelaw faalewul kafe gu foora gu woyof ma jël ko commencé xoolaat defe defe ni màcce ne bii dem a dem ba ci yàgg rek mel ni daal dañ ma am lu ma laar rek ba ma ba yeewu ndekete maa ngi doon jub benn benn benn camion bu mag boo xam ni maanaam ca suuf rek laa doon dugg rek ñu ni l'enterrement oral li ko waral mooy damaa war a nelaw nelawuma ginnaaw nelawuma ci guddi gi yëpp li ma waroon mooy ma xëy tëdd nelaw ma ni déedéet du ma tëdd nelaw damay damay dem sama yoon yàlla ni wan man ak ni ma man maa yor programme bi mais du yow ni nga ko bëggee du ni demee noonu man ni ma ko bëggee man yàlla noonu lay tëddee kon mbokk yi mu ne wa jaal naa nawmakum subaatan kon guddi maa leen ko indil muy arrêté seen activité pour lan ngeen mën cee noppalu dagg seen activité yu dul jeex yi te xam ne àdduna tukkee gul coono yi ne coono ji ngeen amoon mu deñ waaw wàññeeku tuuti ngeen dem tëdd dallu waaw nee na maa leen ko jox tax bu la ko yàlla wër sa gëlee santal de ndax am na koo xam ne dina sonn ba dee te du mën a nelaw su tëddee stress dina ko jàpp ba du nelaw ñii naqar dina leen jàpp ba duñu nelaw ndeysaan ñii am ay mettit dina leen jàpp ba duñu sax mën a nelaw am na am nit ñoo xam ne wóor na leen ni traversé nañ guddi yoo xamante ni buñ ko xalaataatee rek seen àdduna tukki ndax coono ak mettit yoo xamante ni nekkee nañ ko ca guddi googu mën nga bañ a sax mën nga bañ am problème waaye yàlla roof la wéradi yenn saa yi dana xoolal jëmmam ji ni mu toll di jaay nit dafa am maana dafa am fulla xaaral ma woon ko ni ko du ma moroomam li jëmmam ji di bari yëpp dama fay bàyyi lépp dugg ci gémmiñam googu bàyyi fa bëñ yëpp jël fa benn bëñ rek ni ko yow tey li ma la sant mooy waa ji bu mu nelaw tey yow sa mission mooy kii bu mu nelaw moom du si boole wax day bàyyi ba nga commencé for bët rek mun la pëkk déet sëñ bi dañ ni ma waroo nelaw commencé di def yi mbiram ngay wëlbatiku gauche di wëlbatiku droite ba fajar jot soo xëyee ngaaw sa bañ ilaa fan du seeti ab dentiste yenn saa yi mu bàyyi ba nga tëdd ah di defee nii moom moom boppam di yabaate tey du ko laalal bëñ day ñëw ci sa baaraam yi bàyyi fi baaraamu déy bi bàyyi fi bu sànnikaay bi bàyyi fi yëpp dem ba ca baaraamu sànqaleñ ba gën a naw ndaw mu ne baaraam bi waxuma sax lépp metti waaye cat lii rek laa laa sant ko yow catu baaraam bi fexeel ma ba waa ji bu mu nelaw tey du nelaw kon wa jaal naa noonu comme subaatan yooyu dama koy joxee misaal waaye boo koy topp lu jeex li mu la mën a téye ba doo nelaw dafa bari kon bu la joxee nelaw rek sant ko moo tax boo demee bay tëdd ne ah maa ngi tëdd de sa ndigal de soo la neexee ma yeewaat boo la neexee nga faat ma ci nelaw yi loolu moom sa mbir la yow yàlla benn ñaareel bi soo yeewoo da nga ko war a wax alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nasha maa ngi lay sant bu baax yow borom bi ñu ngi lay sant ndax yaa ñu dekkal ginnaaw bi nga ñu reyee waaw te nag dellu gi ci yow la borom bi subhanahu wa taala mbokk yi wa jaal naa nawmakum subaatan borom bi ni wa jaal na layla libaasan nee na guddi maa leen ko defal muy seen suturakaay mel ni yére bi ngeen di sol mu leen di suturaal guddi noonu la bare sutura li ciy xew yépp bilaay bu doon feeñ àdduna tukki bu doon feeñ àdduna tukki waaw boo déggee ñu ni gaañe dañu dem ca boîte ba nii dañuy nii dañuy fecc yàlla dogal ñoom ña fa ñëwoon kenn àndu saak sa jabar ku ne sa coro nga àndal am ndaw suy wër jëkkëram ba foofu ñu ni ko sa jëkkër a ngi fii ci biir coow la bari te mënta dugg ki nga xamante ni mooy saytu boîte ba ñoo jox leen information moom daal am na soxna su ñëw fii nee na boroom këram mu ngi fii ci yéen kenn la ci te nee na boroom këram daf ko war génn ànd ak coroom ñëw fii maanaam ku muy ngoroor rek la la ma doon ñaan ki mu doon na génn léegi rek bala fee scandale am gars yi kenn ku ne ni mugg mu gaaral kenn nanguwul a génn waa ji ni d'accord xëy na kersa gee leen jàpp mais dinaa fay làmp yi su ma fayee làmp yi na ki nga xam ne moo fi nekk ànd ak coroom na génn ndànk ñu mën a continuer suñu liggéey waa ji fay làmp yi trois minutes Abdul Karim bi mu taalaatee làmp yi fekkatu fa benn góor góor ñépp daw nañ ndikite ki nga àndal ndikite du sa soxna waaye daal bi mu taalee làmp yi gisatul benn góor ca mbooloo mun ko ah, guddee bari sutura lëndëm moo tax yàlla ne wa jaalna layla libaasan guddee ngoog bari sutura lool ma muural leen ci la ma leen ca muural mu mel ni ba kenn du leen xamal guddi loo xamante ni allahu akbar waaye ba guddi moo tax li ci def lu baax baax guddi kenn du ko fooy mën nga cee nelaw yàlla suturaal la ci nga bàyyi ba guddi jot ngay génn foo jëm maa ngi jëm ci armeel yi dafa am liggéey bu bon buñ ma jox bu ma war a def ngir diw mi dee wala ngir mu dof ngir mu yàqu dañ ni ma naa ko suul ci armeel yi topp sutura guddi gi di ci def lu bon yàlla nañ ci yàlla mos mu ne wa jaal na nahaara maashan ginnaaw ba ma leen defalee nee guddi maa leen may bëccëg muy loo xam ne si ngeen di daane seen doole làmp leer nañ jant bi ñëw lépp leer jóg leen liggéey yi jóg leen ngeen liggéey waaw dafa jar a xam nit day am métier nit day am métier nga maam Cheikh El ndax dana ñàkk a de te ak li mu daan daj yépp na ca tool yi di san na ca ma na ca tarbiya njaboot gi waaye neen daal loolu diine la rek jàpp ne daal waroon na am métier boppam te nee na it nag bu ma doon tànnaat métier dinaa jël métier am docteur wàllum paj waaw na ko lool nee na ah, liggéey yàlla nee na nag indi naa leen guddi nelaw ngeen ba doyal waaye nelaw dafa am fu muy yem di ah nelaw dafa am fu muy yem wa jaal na nahaara maashan ma indil leen leer bëccëg a ngoogu pour ngeen ute ci lu ngeen dunde dem leen ngeen daani seen doone waaw na ku ne liggéey maa leen ko indil jox leen ko mu ne wa banay naa fawqakum saban shidaadan ma tabax féetale leen seen kaw juróom ñaari asamaan yu dëgër lool yoo xam ni caaxaan dindiw ko fa mu ne de maa leen ko indil waaw yu xereñe nag ci ni ma ko defaree du fa jóge mukk jamono du yàgg mukk ban ni asamaan si dafa varié wala dafa yàqu léegi mënatu fee ne durée de vie dafa jeex te ñun luñ defal dañ koy utal diire de vie lii de oto la dina dund lii lii lii la dina dund lii avion bi yére bi dàll bi ba ca garab gi lay faj sax ñu la dafa am fu muy yem foo xam ne bu fa weesoo day day day périmé day yàqu yàlla nee nag man asamaan si ma indil leen ko mu nekk nii sabaan shidaadan boobu ba léegi juróom-ñaar yii ne fi bougé wul dara new ci wa na na sama saqfan mahfuudan waxoon na la ko mu ne wa jaal naa siraajan wa haajan ma indil leen làmp boo xam ne leeraay gu foor gu am doole la am muy jant bi waaw waaw Abdullah ibnu Abbas nee na mooy almuniirul mutal nee na mooy leer googu nga xamante ni foo ko fekkee day leer xati ngay gis leer gi nga xamante ni moom la jant bi àndal nee na maa leen ko indil waaw bam nee na nag booba nee naa faqul saman sidaadan la la commencé wax loolu wa naa sirajan wa hajan mu ne wa anzalna min al mu'sirati ma an sajjajan nee na ma defar asamaan si def ci ay niir nee ci niir yooyu ma wàcce ca ndox moo xamante ni ndox mu teey la ndox mu neex la ndox mu baax la waaye ndox mu bari la lool nag ah, ndox mu bari lool nee na maa ko indil man borom bi subhanallah borom bi nee na maa indil ndox mu bari lool jële ko nag ci niir yi ci diggante niir yi lay dem ba mu neex ko rek moom borom bi subhanahu wa mu wàcce ci ndox moo xamante ni day jiñu ndax bari bari lool di sottee ko yenn saa yi nga gis ñu toog temps bu yàgg ndox mi di sotteeku rek waa arrêté bari lool bari lool di sotteeku rek nee na loolu man borom bi subhanahu wa taala maay ki ko def indi leen ndox mu bari yàlla loo ci jublu mu ne li nuxrija bihi xabban wana nabatan waaw waaw ndax ma génne leen ci ndox moomu ay pepp ak i gàncax nee na ndox mi dama bàyyi ba ngeen bàyyi ba ngeen ji ba pare wala ma bàyyi ba kenn lekkoon màngoom ba xooxu màngo bi des mu weer ko ba mu wow mu gas ba mu xóot mu suul ko nee na may wàcce sama ndox rek man jékki-jékki ñu gis ni kat mu ngi commencé ami reen mu ngi commencé taxaw jóg na yow ma sotti loxo ci sa tool nga jékki-jékki ay pepp yu yu ndaw nga jiwoon ma indi la ci ay àddunay pepp indil la gerte indil la suuna indil la mboq indil la indil la loolu lépp yàlla nee man maay ki koy def maa ngi ko jaarale nag ci ndox mi indil leen it gàncax gu dul jeex gàncax gu jeexit jeex it ma indil leen ko te loolu it maa ngi ko jaarale ci ndox mi ba léegi ngir man ngeen mën ko di jëfandikoo mu ni wa jannaatin alfaafan yàlla nee na ma indi leen ay tool tool yoo xamante ni dafay dafay dafay fat lu ko tax di fat mooy dafay bari ay garab bari ay banqaas ba tool bi boo ñëwee sax da ngay riir ci biir day mel ni sax lu lëndëm lu ko waral mooy ndax ndox ma may wàcce ca ca foofa moo mujj di bari ba sëqal garab yi bu baax a baax a baax a baax ba xob yeeg yëpp bu ci nekk day dugganteeg moroomam ba doo am sax passage boo mën a jaar loolu lépp yàlla nee na maa leen ko defal kon kay réglé leen yàlla nee na loolu lépp maa ko def kon rek la leen te xam ni li leen war mooy jaamu ma ndax inna yawmal fasli kaana miqaatan yàlla nee na yawmul fasli bis bi may tàqale diggante dëgg ak neen bis bi may tàqale lépp lu bon ak lu baax bis bi may tàqale ñu baax ñi ak ñu bon ñi ñu baax ñi war a dem àjjana ñu bon ñi war a dem ca kër googu nga xam ne yàlla nañ ci yàlla musal bis boobu nga xamante ni si lay dajale jaam yépp waaw waaw nee na bis boobu day kaana miqaatal lu ñu utal àpp la waaw am na rendez-vous de am na date boo xamante ni bien précise boo xam ne moom laa programme ni saa yu yeggee rek yowmul fasli day jot kon yàkkamtiwu ma jarul yàkkamti man xam naa ni li ma wax mooy am man yàlla xam naa ni lii utal naa ko àpp te àpp ba bu jotee faaw loolu am kon nag loolu wóor na ma ni utal naa ko ab kañ mun yow ma yun faxu fi suuri yàlla nee na bis bi nga xamante ni day mu ngi seen kanam te ma leen di wax ni utal naa ko ab nee na mooy bis bi nga xamante ni dinañ ëf ca buftu ga bu ñu ëfee buftu ba fa ta tuuna ngeen dikki yàlla af waa jan di ay mbooloo foofu du kenn kenn mbooloo yu bare jógandoo di wuy ji borom waaw waaw waaw waaw gis nga Pape Samba Màkk dafa am étape yu ci nekk yoo xamante ni dalay jox yowmal qiyaam rek allahu akbar boo gisee boo gisee gaay yi suñuy jógee arafa ginnaaw bañ fay yendoo ndax moom booy pour nga dugg ci aj gi dëgg dëgg dëgg dëgg dugg ci ajj dafa am yu lay war nan la demal nga sangu sangu set nga sangu walla jàppal boo sangoo ba pare ñun la jëlal sa armal sangu boobu sangu sunna la jëlal sa armal nga woddoo benn bi teg benn bi sa kaw yow góor jigéen moom lu mu sor rek na na léppam muuru rek waaye góor moom dañ ni la woddul te teg benn bi sa kaw moom laay wax ndekete boo ci duggee rek xam ne jigéen ñi jàmbaar lañ ndekete wodd du caaxaan moo tax ñun dañuy woddu ba pare di takk lu ne ngay def ndax da ngay bañ wodd loolu day nekk sa kanam di la xaar nga jóge foofu dem Muna jóge Muna dem Arafa jóge Arafa delluwaat boo fa nekkee ba ngoon ba ngoon ba jant so doo fa jullee timis ak gee yaa jullee si mustalifa gis nga boo gisee nit ñi di bëbbandoo ñii di xaari kaar yi di ñëw am ñoo xam ne ndeysaan duñ sax xaar mbooloo yoo baree baree bare ñëpp bay bëbbu fu ñu dem ñu ngi uti musdalifa ñu uti musdalifa boo leen gisee ñuy ñëw sa xel dem ci yomb yun faqu fi suuri fatatuna afwajan waaxu yu metti kaar yëpp di yoon yi xat nit ñi di wékkoo seen sàg yi di waaxu dem musdalifa jógeeti fa waaxu uti mun naa mbooloo yu dul jeex boo ti foofu dem sànni ji jamra boo sànnee jamra waaxu uti kaaba nga gis mbooloo yi ni ñuy duggee ci tunnel yi ni muy riire ginnaaw jamba ji allahu akbar boo ko xoolee mu lay jox lii ñu lay wax ci ahwal yowm al qiyam yowma yunfaqu fi sóori fataatuna afwaajan day taxaw ci sa kanam yàlla ne wa futihat ñëw di ay mbooloo wa futihat samaau fa kanat abwaaban yàlla nee na damay ubbi ñu ubbi asamaan yi mu mel ni ay bunt yu ñu ubbi kàcc kàcc ni ngay tabaxi sa kër ba pare néeg yi nga defal ko bunt ñëw ñu am lu ñuy vérifier saa yoon jàpp la police jàpp la wala dara jàpp la ñu ne nañu def descente ci këram bu ñëwee kàcc kàcc di ubbi bunt yépp ubbi di xool xaw yi sa sutur yàlla nee na asamaan si noon laa koy def waaw waaw waaw waaw wàcc mel ni ay bunt yu tijjeeku mu ni duma ci yem de waaye wa sayiratil jibaal fa kaanat saraban nee na dañuy dañuy dañuy dañuy tasaare montagne yi wala mel ni dañ leen di doxloo nee na bu mu maasee dara dootu fa nekkati nee na boo xoolee fa kaanat saraaban da koy séen waaye boo ñuy gis ni dafa mel ni lu ñu lu ñu lu lu ñu lu ba mu jeex yay mel ni ñunux bu boobaa ñunux mooy li nga xamante ni yaxsabu dam anu maa an boo xoolee Pape Samba yenn saa yi ngay dox nga daan dox ci tali wala nga daan dox ci àll mar naan lool gisoo ndox seen sa kanam mel ni danga fa seen ndox moom la yàlla na yaxsabuhu damaanu maa an nee na ki mar da koy teg ndox nee na bu ñëwee ba ci yegg ba yegg si nag gis te dara new fa du ndox nee na keroog montagne yi noonu laa leen di def man yàlla tasaare ko ci seen place bu leen yëg buuseel nag ñuy dox boo ko tegee ndox yàqu nga de waaw jariru tabar yi nee na montagne yi noonu lañ leen di def ba mujj gi du ñu mujj doon rek lu dul pëndax pën poussière buy dox ci bëtu gaay yi xool waaw nee na lay mel nee na boo ko xamul nag da ngay defee ni dara nga fa boo ñëwee di nga xam ne fii nekkete dara newu fi borom bi subhanahu wa taala nee na loolu laa leen di defal foofu borom bi di inna jahannama kaanat mirsaadan nee na gis nga jamono yii ñuy ëffe buftu ki ngeen di ñëw di waaxu di ñëw moo ubbi asamaan si mel ni ay bunt montagne yi di dox montagne yi seey tasaaroo mel ni pëndax buy dem nee na bu loolu amee xamu leen ni inna jahannama kaanat mirsaadan safara moom mu ngi làqu ci benn er rek di leen xaar nee safara mu ngi làqatu ci benn roq rek moom taxaw di leen xaar tuuti moom léegi mu régler problème ak yéen waaw waaw ngir soodal na yàlla di leen di fuglu <laughs> mu mel ni rek guerre am nga gis militaire boo xamante ni dañ ñu ko làqatul fii mu làqatu ennemi bi bu ñëw du ko gis day jékki-jékki rek mu assommé ko walla jëkki jékki rek mu dóor ko balu fital mu daan parce que dafa làqatu fu ko gisal nee na safara loolu lay def de moom day làqu fenn rek de nee na taxaw di xaar gars yi bu ñëwee rek génn rek mu taxaw sa kanam doo mën a tee dem ni ni ni rëbbkat bi di di làqatoo taxaw fenn foo xamante ni day xaar benn benn ci yi mu soxla yi bëgg bëgg leen a jàpp tey ji romb fi rek wala mu am benn xajam boo xamante ni noonu la koy préparé xaj bi làq làq ko fenn rek ba jékki-jékki dara romb lu mu soxla rek lëg bi romb la wala dara rek mu bàyyi xaj bi mu dox fekk ni jege na ko làq woon na fu ñu ko gisewul nee na safara noonu lay def de waaw loolu dina metti mun naw bu leen tiit li taaxiina ñoom lool ñooñu koy tax di def lool de ndax ñooñu moom ma aban nee na nee na ñi bew wàcc yoon di def leen neex nee na ñooñu ñoo ko tax di def loolu waaye du yéen ñi gëm déedéet déedéet mu ne du pour yéen ñi gëm ñii nga xamante nag ñoo doon bew nee na foofu mooy seen mujjuwaay mu ne laa bi siina fiha ahqaaba neen dañ fa sax ay jamono ay diiri diir temps yu baree baree baree bare moment yu baree baree baree bare di jàll rek bii ñëw jàll bee ñëw jàll bee ñëw jàll nee na dañu nekk foofu rek mu ne laa yaduquuna fiha bardan wala sharaban nee safara si ñuy nekk day du ñu fa mos seddaay te duñ fa mos dara lu ñuy naan ah yàlla loolu doy na war di mu ni du ñu fa mos seddaay du sedd te duñu fa du ñu fa naan dara illaa xamiman waxa saaqan lu dul ndox mu tàng jër wala yi nga xamante ni nit ki bu buñ koy rakk subhaanallah yii génn ndox likit yu doy waar yu naqaree nettal yooyu di génn si yaram nee na yooyu lañ fay naan ah yàlla xanaa yow yàlla dafa mel ni da ngaa xaw a néeg de mu ne déedéet <laughs> jaza an wifaqan lii moo tombeek moo fay la boo xam ne dafa tolloog jëf ji ñu jëf maanaam du man maa ko def waaye seen jëf la ñoom li ñu jëf moo tolloog lii moo tax ma jox leen ko Pape Samba dañ yàlla dafa néeg waaye waxtu wee jeex waaye bu ma ñëwaatee dinaa la wax ni la li ñu jiiñ yàlla moo ne ñun ñoo ko gën a néeg yàlla nee na duñ fa mos lu ñu naan duñ fa mos lu ñu lu lu sedd lu tàng seen yaram nga yu bon ciy génn yooye la ñuy naan mu ne nag loolu bu mu leen jaaxal du ma ci dara jazaan wifaaqan moo tolloog lañu def seen fay la ma jeexal nag ni leen ñun ñoo gën a néeg yàlla su ma ñëwaatee dinaa leen wax lu tax ma wax loolu yàlla ñu yàlla defal dégg yàlla ñu yàlla defal topp allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaa wa arina albatila batila warzuqna ijtinaab wala tajalhu multabisan fina wa jaalna lilmuttaqina imaman wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu